بيت الولايات فيه فاح الظلام ومفتاح الخلود وختم الكل يا الله رحمن يا رحيم يا مليك القدوس يا مؤمنوس سلام يا الله اغفر لأمته وارحم بأمته واسترها واجبران ربي الله يا متكبر يا جبار القهار خالق يا مهيمن البارئ الغفار يا الله ربنا اغفر لأمته وارحم بأمته واستر لها واجبرا ربي الله عزيز قهار يا ولي المصور يا وهاب رزق يا فتاح يا الله اغفر لأمته وارحم بأمته وستر لها وزرا آه. عربي الله عليم يا قابض باسط يا حكم المعيز يا خافض الرافع يا الله مولانا اغفر لأمته وارحم بأمته واستر لها وجبران ربي الله مذل يا عدل يا سميع واسع يا بصير باعث يا لطيف يا الله اغفر لي أمته وارحم بأمته آه. واستر لها وسترا الله ربي مقدم نور يا مؤخر يا ربي مقدم نور يا مؤخر يا غني يا الله يا خبير الله مرنا اغفر لأمته وارحم بأمته واستر لها وجهها عربي الله متين يا واجد الولي رب نبيا يا متين يا واجد الولي ربي يا حميد يا الله يا علي الله مولانا اغفر لأمته وارحم بأمته واستر لها وجه حربي الله متين يا واجد ولي ربي يا متين يا واجد ولي ربي يا حميد يا الله الله يا علي الله اغفر لأمته وارحم بأمته واستر لها والقرآن ربي الله حليم يا حق وكيل ماجد يا حليم يا حق يا وكيل ماجد يا غفور يا حي يا قيوم يا الله مولانا اغفر امتي وارحم بأمته واستر لها والبراد ربي الله شكور جميع يا مجيد ربي يا شكور جميع يا مجيد ربي يا يا كبير يا مقسيط العظيم يا الله مولانا اغفر لأمته وارحم بأمته واستر لها وجبران ربي الله شكور يا مجيد ربي يا شكور جَمِيعُ يا مجيد ربي يا كبير يا مقسط العظيم يا الله مَدَنَا اغفر لأمته وارحم بأمته واستر لها وجبراتها ربي الله قوي محسن معي ذو المبدئ الصمد قوي محسن معي ذو المبدئ صمد المحيي المميت رؤوف البر الله مغنى اغفر لي أمتي وارحم بامته واستر لها وجه قران ربي الله قوي محسن موي دول مبدي دول قوي محسن مولي دول مبدي سمد محي المميت رؤوف البر الله مولانا اغفر لأمته وارحم بأمته واستر لها واجبرها ربي الله تواب يا موتى للواحد الأحد تواب يا متعب للواحد الأحد المانع يا ضار يا نافع يا الله مولانا اغفر لأمته وارحم بأمته واستر لها والقرآن ربي الله يا مالك الملك ربي ذا الجلال والإكرام يا مالك الملك ربي ذا الجلال والإكرام شهيد بديع الهادي الله مولانا اغفر لي أمي أمته وارحم بأمته واستر لها واجبرها ربي الله يا نور منتقم قادر مقتدر يا نور منتقم قادر مقتدر المجيب يا الله يا ودود يا الله مولانا اغفر لأمته وارحم بأمته واستر لها والقرآن ربي الله يا أول الآخر الكريم ظاهر يا نور الله يا أول الآخر الكريم ظاهر يا رقيب باطن يا حسيب يا الله مولانا اغفر لأمته واستر لها واشكرا ربي الله مقيت يا الله يا جليل ربي ويا حفيظ يا الله يا حكيم يلا مرنا اغفر لأمتي وارحم بأمتي واستر لها وشرها ربي الله عفو يا وارث باقي الرشيد ويا جبور يا ربنا يا الله يا الله مولانا اغفر لأمته وارحم بأمته وستر لها واجبران ربي الله بسر هذه الاسى مصليا على سيدنا الحميد محمود الله اغفر لأمته وارحم بأمته وشكر لها وجبران ربي الله الفاتح المخلق الخاتم ما سبق مسر المكلم خير الخلق الله اغفر لأمته وارحم بأمته واستر لها واجبرها ربي الله الناصر الحق بالحق الجلي وإلى صراطك المستقيم هادي الله مولاي اغفر لأمته وارحم بأمته واستر لها واجبر ربي الله ثم على الآلحة قدره قدرا مقداره عندك العظيم يا الله اغفر لأمته وارحم بأمته واستر لها يا ربي الله رب تبارك أو رب تقدس أو رب تعالى علوا ربي الله مولانا اغفر لأمته وارحم بأمته وستر لك يا وجبر ربي الله الحمد لله رب العالمين سرنج اس جزاكم الله عنا كل خير خمنا لي نكو جونجي وون ما شاء الله تعالى اوبيتك تيسير بي مو ملني بو نكو توبي تي كوماسما با فين li ñu ciy jàngate mooy dimension tawxiid bu Seyd El Hadj Malick waaye dinañ ci jàngate dimension dëddu àdduna bu Seyd El Hadj Malick boo jàngee biir tey siir da nga ciy yëg ni Seyd El Hadj Malick dara àdduna du daraam dangay dégg sëriñ Habib macha allah xafidahu llah wa raa muy wax ni àdduna ci boppam dafa ragal Seyd El Hadj Malick ndax li ko Maodo wax a tax boo demee ci zajrul qulub Seydi Hadji Malick dafa wax àdduna lu ko kenn waxul moo tax li àdduna yëpp jaam ñëpp ba leen di sërxal leen dugal ci ndaka sudul noonu àdduna moom dafa far ragal Seydi Hadji Malick waaye taysir bi loolu lañ ciy jàngate boo xoolee fii ñuy dugg tey di asmaullahi al husna nga xam ne mooy garat al asaasi li binaai haadihi al qasida li tax Seydi Hadji Malick taalif téere bi defal kon muy tawassul tawassul bi yëpp mi ngi ko jaare ci asmaullahil husna waxoon nañ bi passé ni borom bi tabaraka wa taala moo ñu wax ni ku ko bëgg a jige na wut wasila ku bëgg boo ñaanee mu may la wutal wasila yaa ayuha alladina amanu ittaqu llaha wabtagu ilayhi lwasila borom bi subhaanahu wa taala moo wax ni e yéen ñi nga xam ni da ngeen a dugg ci daairatul iman ñett yi na ngeen ko bàyyi xel bi ci njëkk mooy taqwallah na ngeen ragal seen borom subhanahu wa taala ñaareel bi mooy ibtiraul wasila na ngeen lu ngir wut wasila day mu fassiruna ne bu ñuy firi sëriñ as ibtiraul wasila dañu wax ne al ibtira huwa al jidd fi talab yàlla waxul rek sàkku leen wasila de waaye def leen yitte ju rëy ngir am wasila al ibtira du sàkku rek waaye mooy al jidd fi talab muy ngër farlu ci la ngay wut yàlla ni nag alfalaahul ilaahi kenn du ci àgg ci àggu jaaroo ci ñaar yooyu al iman wabtigaaul wasila siraaj maalik ne ni wasila yi bari nañ waaye ñaari wasila yi nga xam ni moo ma gën a doy ndax léeg-léeg nga jël wasila muy sa jëf ju baax mën nga ko jël muy sa wasila di ku nekk jàng na salaasa ña duggoon ca xaar ba waaw mën nga jël ñett def ko muy sa wasila nga jël jëf ju baax def ko muy sa wasila Siraj Malick bàyyi fii jëfam ndax wóolu ko nee na ngir modestem mu jël ñaari wasila yi nga xam ni wóor na ko ni ku ci jaar àgg ci sa borom subhaanahu wa taala bi ci njëkk mooy walillahi al asmaul husna fad'uuhu biha yàlla moo wax ni képp ku may ñaan ca bëgg la nga may ñaan ma may la ko jaaral ci sama tur yu sell yi soo ma ci ñaanee rek ma may la muy quatre-vingt-dix-neuf tur juróom-ñeent fukki tur yooyu ak juróom-ñeent yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa ni képp koo xam ne ahsaaha fexe ne ba takk ko mu nekk ci dënnam yonent bi nee na jaam boobu yaramam araamal na safara Seydi Aji Malik jaar ci tur yooyu ngir ñaan boroomam subhaanahu wa taala juróom-ñeent fukki tur yooyu juróom-ñeent du loolu rek mooy tur yàlla yi nag déedéet gis nga baatu allah muy ismullah mooy ndeyu tur yëpp mbooleem juroom ñett fuk juroom ñen fuk tur yi ak juróom-ñett ñi ngi juddo ci tur wo ñuy wax allah mais juroom ñen fuk tur yoy ak juroom ñent ka dalik tur bu ci nek da ngay juraat ay tur yi tur yi ay millions wala ay milliards tur yi dul jeex kenn xamul nu mu toll Siraaji Malik nag commencé lim tur yooyu ngir ñaan borom subhaanahu wa taala yallaahu يا رحيم يا ملك القدوس يا مؤمن السلام يا الله allahu akbar gis nga tur yooyu sëriñ As boo ci taxawoon benn bu nekk ci tur yooyu mën nga ci yenn fanaan ci ca du jeex ndax turu yàlla xoolal lu ni tur yàlla nga bëgg koo leeral yan maanaa moo aju ci tur bi yallaahu xoolal si daa jimaa dafa mel ni ku jékki-jékki rek tiit yaa allah ee yow yàlla yow laay woo yaa xarfu nidaa la saa yoo ko tuddee am na koy woo boo nee yaa ñi ngi déglu ba xam kan ngay waxal muni allah yàlla lay wo muy tour wi nga xamni neena la mo jur tour yep borom bi subhanahu wa taala commencé ci waxam commencé ci terem muy bismillahir rahmanir rahim Allah nak moy jaamiu li jamii al asma wa sifat siraj maalik allah yow yàlla yow lay wo yow yaay kan muni ya rahman rahmaan ngi lay wo di jaar ci sa tour wi nga xamni moy arrahman arrahman yërmande la mais yërmande ju yaatu yërmande yoo xam ñëpp xaj nañ ci mooy rahmaanu ku baax xaj nga ci ku bon xaj nga ci defkatu bàkkaar bi xaj na ci rahmaan moom ci la ñëpp dugg waaw wa rahmatullahi kulla alxalqi qad wasiat min faajirin wa mutiin waaw yallaahu rahmaanu mu ni yow yàlla yow laay woo yow yaay kan dafa bokk ci say tur rahmaanu yow yaay ki nga xam ne sa yërmande ñépp xañ wa rahmati wasiat kulla shay waaye yaa rahimu yow it yaa tudd rahim rahim benn la ci turu yàlla yi rahim mooy kan ah inna rahmatullahi qaribun min al muhsinin rahim nag tur la woo xam ni ñëpp bokkuñu ci dafa am ñu ko yàlla jegleel alla yowma alqiyamati rahmaanu day jeex dutul dox turu rahman ci àdduna la yem day expiré waaw bu ñu demee yemal qiyaam rahman doxatul de rahman yàlla bàyyi na ko ci àdduna rahim lay jëfandikoo yemal qiyaam ca rahim rahim boobu nag yàlla nee na wa rahmati wasiat kulli shay waaye fa sa aktubuha lilladina amanu yaamaluna salihat yàlla nee na sama yërmande jooju nga xam ne ju yaatu la waaye nee na nag li muy jigeeg li muy dama ko réserver ñi nga xamni dañ ma gëm ci nango top sama yonent bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam Seydi Aji Malik ni kon yaa raximu maa ngi lay woo est yaa raximu yaa maaliku <laughs> yow yàlla yow mi nga xam ne yaay maalik keneen ku mu ko wax dañ la koo jiiñ rek <laughs> waaye malikal mulki moom kenn la <laughs> mu ne ko yaa maaliku yow mi nga xam ne yaay yaay ki moom nguur yaa maalik yow yaay buur waaye yaay ki moom nguur waaw keneen ku ku ni buur nga rek dañoo jël tuuti ci melokaanu yalla tapal la man nga waedo bour waye do borom nguur ndax bu fekkone yaay borom nguur sa nguur du jeex waye ku fi jaar rek dañ nan diw nekkon na fi bour diw nekkon na fi bour diw nekkon na fi bour ni ko ya maaliku yow mi nga xamni yaay bour yow la yow yalla subhanahu wa taala Ya malikul quddus al quddus ci melokaanu yalla yi la bok ci turu yalla yi la al quddus serigne as moy ku sel gis nga jambi bu ñu nee ko da ngaa sell wallahi takal nañ ko garaat bu mu momul mais moomul te pire yalla subhanahu wa taala rek moko ko moy al quddus kenen ku dul moom daa jël ci melokan bi rek tapal la ca ca moy yonenti kat fa la yam moo nga gis ni yonenti ay masumuna lañ dafa jël garaatu quddusiya takal ko yonenti ba nga xamni ab yonenti dutul def -hmm. waaw moo tax ab yonent mënul def bàkkaar ndax darajatul quddusiya bi la yàlla subhanahu wa taala jël tappal ko ay yonent waaye taxul nag mu nekk quddus ndax melokaanu sell yàlla subhanahu wa taala rek moo ko jagloo moo tax mooy al quddus mooy ki nga xam ni mooy ki sell moom borom bi subhanahu wa taala Uh,